dama koy rendre hommage ci bis bii may defar Cheikh Mamadou Lamine Baara muy baay Aale Ndiaye mu baax mi bay Alaaji Aale Ndiaye jàmbaari l'islam jàmbaari Sidi Hadji di jàmbaari lislaam lool barki démb wax naa ko ci benn barab kookee di bay moo daan tabax jumaa yi daan tabax daara yi daan taxaw daara yi daan jumaa yi waaye daal dimbali néew di doole yi jàmbaari lislaam jooju li Serigne Bassirou Mbacké xaar ba wax ne dama koy rendre hommage ci sama bis bi muy Alaaji Baye Alé Ndiaye délégation am nag moo ñëw nii di njabootu boppam ki nga xam ne moo jiite délégation bi mooy taayu boppam muy Alaaji Masata Ndiaye mii toog mooy taawu Baye Alé mu ànd ak nag ay rakkam yëpp ndax boo séenee jëmm ji toog muy Baye Ndiaye di nga xam ne njaboot gi ñëpp ñëw na mu i tamit itamit Mohamed la mii nga xamante ne day kenn ci Baay Alaaji Ale Ndiaye di doomam moom Serigne Touba Cheikh Saliou waaye mu ànd ak tamit Serigne Cheikh Samb mi nga xamante ne ku ne xam ne ne kenn la ci Baay Ale Ndiaye ak njabootu Baay Ale Ndiaye moo toog nii moom Sirage Malick waaye ñu tamit doomi Baay muy Alaaji Njoogu Mbay mii toog moom Serigne Touba Cheikh kon suñu ñëwee man naa wax ne Abdoul Aziz Ale ñëw na njaag ñëw na njaboot gi yëpp ñëw nañu waaye ñoom lay yëkkati kàddu gi jox leen ko teg ko ci loxol Serigne Cheikh Samb mu indi kàddu yi nga xam ne mooy kàddu njabootu Baye Alé Ndiaye bisimilah kàddu gaa ngi ni yarjo yarjo yarjo minallahi awlal qalbi bi def leen ni fa baaya ankara karaman seeti sëriñ mbay si Mansour ku mu jaaral loxo yi ca kaw yar joo daane yar min allahi aw lal xayra muttayim yar joo yar joo yar min allahi aw lal xayra muttayim cër buñ la mën a jox ak na lañ la mën a tudde ba réew mi bokk ko bi ñu egsee ci sa ma ne ko bu dee Cheikh Mahamadul Bachir xaalib awa ba de danay yëll askan bépp ak réew mépp bokk tudd ko grand bienfaiteur de fii ba Mibas Njaay nit joge na fa fii ba Tiwaawan nit joge na fa jëlale naa géejawaay gi nga xam ni moo nekkoon may daanu bàyyi ale bi mu daan jaamoo suñu borom ñaata yoonu màkk yoo xam ne bàyyi alxaaji ale njaay dem na ci boppam yóbbu ci ay nit ëpp alaaj Omar Seck góor gu baax googu ñaata yoonu ziyaare Seydina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu nga xam ne Baye Alxaaji Ala Njaay joxe na ko ay nit pour ñu dem tëbbuwaat ci seen tariqa ñaata ci dund la jël jox ay nit nag yi daan dàq di koy yóbbu diggante Touba ci Tiwaawan ak ci foyer religieux yi bu ñu gisee alxaaji Masata ànd ak rakkam ñu koy def ak Abdoul Aziz Ale ak baay ak Ndiak dañu naan ñii li ñuy def lan la waaye histoire jàngal ñu ñi dañ koo ci seen baay boobu di bay alxaaji Ala Njaay yàlla yàlla ko leeram Pape Makhtar Lo agsi na léegi mi ngi ci délégation bi alxaaji Njoogu Mbay mi ngi nii toog di sa lépp di sa rak di sa soppe di sa rak xol laay wax mi ngi nii ci délégation bi loo suñu xarit tabaarakallahu mi ngi nii bada ak waa alburaax kenn desul ñii nii toog waaye ki nga xam ni bu Abdoul Aziz ale jële ndigal ci masata ak njaboot gi ànd ak baay ànd ak ñun ñii dem Touba këram lay ndekkee doog a dugg ci dëkk bi muy alxaaji Mouhamed Sylla mu baax mi ngi nii toog sëriñ bi li neex naa layal ñan ñoo ñëw waa kër Baye alxaaji Ale Ndiaye radiyallahu anhu fu ñu jëm ngir màggal bisub Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kan la ñëw seeti jaarale seen ziyaara ci moom Cheikh Mouhamadou Bachir Xarim Awa Ba lii neex naa layal Mbàkke nag daa fekk nga mat ko ci sa taxawaay daa fekk nga joxe exemplarité bi ci réew mi ci mbaax ak nangoo liggéey ak nangoo garde li nga xam ni mooy viatigu mag ñi loolooy waral bu Tiwaawan jotee gàmmu gi jot Mawlaaye ji jolli ma seen motaar buy daw délégation mbak topp ko Tiwaawan gépp génn ñu ni kan mooy si ñu ni Cheikh Mouhamadou Bachir Khadou Awa Ba la tàmbalee ca xaru général des Tidiane a Cheikh Seyd Aboubacar Mouhamed Mansour day yëg ni yëg si nga ci dëkk bi Serigne Babacar Abdoul Aziz da koy yëg waaye njabootu maam Cheikh Seyd El Hadji Malick yëpp dañ koy yëg loolu taxul de du bor bu ñu ñëw di di fay see da ngaa nekk koo xam ne da ngaa yëg ni responsabilité bi yàlla def ci yow yëg nga ni yaa ngi ko bokk ak ëttu diine bépp nga ni naa jóg def ko Pamataar mii li may wax seede la ci Serigne Habib Sy Mansour sa diggante moom xam nañ ko waaye njabootu Baye Alaye Ndiaye gii nag dañu ni bis bii Mbàkke nga yëkkate l'islam bi lépp loo ci def ak loo ci nar a def ak loo ci jublu xam nañ tax nga koy def mooy wane en terme référentiel jaar-jaar ak liggéey ak la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhamed Lamine Bara wane liggéey bu rëy bi mu liggéey ci réew mi ba les génération générations man ko cee roy nga wax ku baax ni dama koy delloo hommage loolu rek waroon naa tax ñu ñëw muy bàyyi alxaaji Ala Ndiaye waaye jàppal délégation bii ma lim alaaji Masata jiite ko ñu joge ci njaboot gi gën nañoo kontaananti bi nga xamee ni jël nga sa invité d'honneur def ko Serigne Sidi Ahmed si ibnu Cheikh Alxaaji Abdoulaye Aziz si Dabaax rak ko Serigne Maodo si mii sëñ Omar si njoo si jokk ci moom loolu rek waroon naa tax njabootu Baye jog jóg nga jëlaat nag cër bi ak lépp ni damay ñaanal Baye Ale kaamil yi ñu fiy jàng qasida yiñ fii duruus alquran jiñ fii tari ak nitu diine yi nekk fii yëpp nga ni man Serigne Bassirou Khady Awa Ba yoolu leer bi yal na ko yàlla tabbal bi jiwaari Seydina Muhammad yéene ko ba El Hadj Alioune Ndiaye Serigne kenn mën laa kenn mën laa fay senegal ñoo la ndax ku ñu wóolu yow la ku ñu wóolu wul yow la ku ñu wóolu woon te wóolatuñ la xoolal sa bopp waaye yow taxawaay bi nga taxaw ci réew mi. taxaw ci ko sa kër maam yi laay wax du ma wax Tuubaa sa kër maam yëpp dafa nekk loo xam ne si àdduna yëpp dañ cee bég moo tax njaboot Baay Alxaaji Ale neen lépp loo xam ni mooy jagal bis bi ci biir ak ci biti seen asaka yéene sañ nañ ko cee dugal pour ne ni yow li ngay def ñoom nga ko defal Sénégal nga ko defal jeunesse gis jullit yi nga ko defal ndax yow sëñ Ba sëñ Basiru ab référence moo tax ay tonu ceeb mi ngi ci biti ci camion bi diwlin moom tabaarakallaahu ku ne xam na njawatu bay ale ak huile jodor huile tournesol ma publicé waale mi ngi ci biti luy ndox luy ndox tabaarakallaahu indi nañu ko waaye jël enveloppe boo xam ne def na ay koppar tabaarakallaahu yu takku dañu xeeb ko lool mi ngi nii jox naa ko xaaj Seydou mu jox ma ko sëñ bi ndax maay Seydou Seydou man kon tabaarakallaahu bi ñuy ñëw ci yoon bi léegi daa am nag lu daw yaram ci biir délégation bi sëriñ bi Abdoul Aziz Al Ndiaye daa am lu mu wax Masata dañu ko nit ki ba amagul kilifa farataam mooy mu xam boppam waaye su xasee am kilifa gu mat kilifa nag farataam mooy na réere boppam te xam valeur kilifa moo tax Abdoul Aziz bi ñuy ñëw daanaka ñu ñëpp suñu rongoñ dafa tuur ci li mu ni man du ma dem bu Masata Ndiaye toogee di sama taawu baay te ku woon bu ma fekkoon sama baay teral ko sama taawu baay toog teralu ma ko ngay wax du ci yow mu ni Massata boo jiitee délégation doy sëkk Baye Ndiaye ni ko man téemaa wàññeeku Massata bu ñëwee mate na ko sëkk Babacar Ndiago woote ni comme Baye Ndiaye nga fa Massata nga fa Abdoul Aziz woote na man lu ngeen wax sëriñ Bassirou ci lu baax mu jëm ci Baye Alla xeeb ko loolu la délégation bi waxoon ni naa la ko jottali sant la gërëm la ndokkel la félicité la tey yaakaar ni journée Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké édition 2023 buñ ci génnee incha allah bali sam bépp toog tariqa yëpp toog ba ci communauté chrétienne bi jàppal ni ñoo bëgg ci liggéey def ndax am na nag ñoo xam ku leen wane yàlla wane leen ba noppi ku leen waneel wut yàlla waneel ba noppi kon barigo bu ñu teg ci mbartal teg sa loxo ci puus bi moo gën a nekk sax kon tabarakallahu bu ñu génnee aux conclusions de cette journée njabootu Baye Alé Ndiaye neen ñu ngi lay souhaiter mu nekk une éclatante réussite nekk réussite boo xam référence Sénégal gépp dañ ciy bokk naar ba nag ba mu ñëwee Makka seetlu benn waaye ndekte waa ji déggul arab déggul anglais mu dugg ci benn taxi daal a jóg taxi bii daw tamu wàcc tamu war a àgg fa muy wàcc mu xool waa ji dóor ko dompat ko geste bu ne mu def ko pour waa ji way ko arabi xamul nuñ koy waxee taxi man bi déggul olof déggul arab déggul anglais moom waa ji déggul olof déggul arab déggul anglais mu liyaar ko liyaar waa ji ko Seydou mu xool ko jag ni ko sadaqal azim salaamaaleykum kaddu yi matala ne waaye kaddu yi am na solo waaye maa ngi ziar bu baax soxna mu Kara Mbàkke mu Cheikh Amadou Kara Mbàkke nooray ni teew na ci jotaay bi di kenn di kenn ci Cheikh Mamadou Bachir maa ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu di la waaye maa ngi jëlaat kàddu gi di ko jox Serigne Mohamed Silla mu Serigne Saliou ndax Serigne Bassirou moo ma ne naa la jox nga yëkkati ay kàddu ndax délégation bii su ñëwee ci moom yow war nga nee na délégation man mën ngaa wax ci seen tur mën ngaa tontu ci turu Serigne Bassirou Mbacké Ba kon Serigne Mohamed ñëwal waaw ay ca naa ko bu wér ëpp na ko kay asalaamaaleykum wa rahmatullah mbooloo mi Serigne Mohamed Sylla mu Serigne Saliou nee na asalaamaaleykum wa rahmatullah moo ngi nuyu Serigne Bassirou Mbacké mu sëriñ xaari aw ba nee na ngay jàmbaari sëriñ baara di gayndeeg sëriñ baara Mbàkke te ñëpp nangul nañ la ko nee na moo ngi nuyu sa mbokk yu tedd yi nga fi fekk sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Abdoul Baara nee na noo ngi lay ziyaar bu baax a baax nee na di nuyuwaat sa yeneen rakk yi mu fi fekk ku fi mel ne Serigne Abdoul Khoudous Mbacke mu Serigne Cheikhouna mu Cheikh Abdoul Ahad ñu xam ñoom ñaar seen diggante ñoom ñaar di benn te duñu ñaar nee na ñoom ñu xam suñu diggante ak Serigne Abdoul Khoudous ñu xam diggante Serigne Mohamed Silla ak Serigne Abdoul Khoudous looloo waral buñ ko fi fekkee yell na nee na ñu beral la nuyoo ak Serigne Bassirou Mbacke mii mu Serigne Modou Makhtar nga xam ne ñoom ñoo bokk benn way jur moom moom ndax ni ko sëriñ Modou Maxtaar defoon ak ni mu ko bëggee woon nee na nga nekk xaritam nga nekk wëllëreem euh, nee na comme ni ko sëriñ Basiru Mbàkke waxee njabootu alxaaji Aale Njaay nee na yàlla sunu boroom moo ko booleeg ñoom xam ne boole boo xam ne nee na boole bu wér la. dëgg lal ko dëgg lal ko. ak lu mbaax ak mbaax. ak ak rafetal ak rafetal. Euh, yàlla dogal na ne. nee na yàlla dogal na ne. xamel boobu. xamel boobu. ak cër boobu. ak cër boobu. ak kóllëre googu. ak kóllëre googu. yàlla ci loxo. yàlla ci loxol. Baye njaay mii la ko jaarale. Baye Ndiaye mii la ko jaarale. mu nekk sama xarit. nee na Baye Ndiaye xaritam la. fukki at ak lu topp. fukki at ak lu topp. nee na ñoom ñaar ñu nekk ko nekk gu rafet. looloo sabab. looloo sabab. moom digganteem ak Aziz Aly Ndiaye. digganteem ak Masata bi nga xam ne mooy xalifa bi. ak digganteem ak rakkam yëpp. ak digganteem ak rakkam yëpp. ak mbokkam yëpp. ak mbokkam yëpp. bi ñuy ñëw. nee na bi ñuy ñëw. comme ni ko Cheikh Samb waxee léegi. comme ni ko Cheikh Samb waxee léegi. man mii de. moom de. fekkoon na ma waroon fee ñëw tey. fekkoon na moom met mu war fee ñëw tey jii. waaye. waaye bi ko délégation bi woowee. dama ne leen damay ànd ak yéen. daa ko ne damay ànd ak yéen. seey ci seen biir seey ci seen biir. ndax jaral ngeen ma yéen de jaral ngeen ma ko. moo tax masata mi. looloo waral masata mi. tey jii. tey jii. moo ngi ko waroon a fekk. moo ko waroon fekk. seen dëkk Mbibas. moo ngi ko waroon a fekk seen dëkk Mbibas. waaye ñor gi leen bis waaye ñor gi leen bi ñor. ak ñor gi leen sëñ Basiru. ak ñor leen sëriñ Basiru Mbàkke ñor. moo tax heure bii. moo waral heure bii. mu fekk ko fii. jàpp nañ ne nee na jàpp nañ ne. nit nit. sooy def lu baax sooy def lu baax. ba àdduna bépp ba àdduna yëpp. nangu na li ngay def lu baax nangu na lii ngay def lu baax la. ko ca dugal rek koo ca dugal rek. koo fonk fonk la. kon Serigne Bassirou. nee na yow kon Serigne Bassirou. njabootu Alhaji Aale Ndiaye njabootu Baye Aale Ndiaye. ak xaritu njaboot gi. ak xaritu njaboot gi. mel ne Njoogu Mbay mi ku mel ne Njoogu Mbay mi toog di sa wóllëre di sa wóllëre di sa taalibe di sa xarit Pape Makhtar Lo di taalibe Seydi Hadji Malick waaye nee na yow sa wóllëre la di sa xarit di sa soppe nee na ñu xam fi nga ko teg yow ci sa biir nee na tey li nga defal njaboot yow li nga defal njaboot gi li ci gën a neex li ci gën a neex mooy du feeñ mooy du feeñ de nekkul li feeñ nekkul li feeñ li nëbb moo gën a nee na li nëbb moo gën a bari lool moo gën a neex moo gën a neex tamit ndax nag ndax nag réew mi réew mi dara umpeetu fi dara umpeetu fi lu lu baax day génn day génn safaan safaan day génn day génn liñ ñuy nettali liñ ñuy nettali ci fan yii ci fan yii gëstu gi nga def ci moom ak lu baax li nga seeral baay aale loolu rek loolu rek jaroon na ñoom ñëpp ñu bàyyi seen yitte nekk feeg yow ba bis bi jàll ñu dimbali lay baas ñu dindi la baas yi baleel la fii ndax defal nga leen loo xam ne sedd na seen xol nee na di nuyu tamit euh, suñu wayjur yi ñu fi fek nee na di nuyu bu baax suñu wayjur yi ñu fi fekk. di waa kër El euh, Hadj Abdoulaye Dia. di waa kër El Hadj ku baax nee na Alaaji Dia nit ku yàlla baaxal la. nit koo xam ne. nit koo xam ne. référence la référence la. ci bépp ndaw ci bépp ndaw. boo xamante ne boo xam ne. bëgg ngaa dem fu sori bëgg ngaa dem fu sori. kon daal sëriñ Basiru. nee na daal kon sëriñ Basiru. fi may jeexale fi may jeexale. mooy njabootu Alaaji Ale. mooy njabootu Alaaji Ale seen xalifa toog nii nee seen xalifa toog nii. Aziz Ndiaye. Aziz Ale Ndiaye. bi mu wootee léegi bi léegi. li mu wax li baay nekk fa baay nekk maa ngi fa man masata mooy sama kilifa bu ne bu ne bu fa kenn dem bu fa kenn dem ah dinañ woo sëñ bi ne ko kat nee dinañ woo sëñ bi ne ko li nga def rafet na li nga def rafet na waaye suñu kilifa nag waaye suñu kilifa nee na nangam moom it moom it mu rafetal ko lool rafetal ko lool ne Aziz ne Aziz sëñ Bas moom sëñ Bas moom boo xoolee boo xoolee 17 heures ba léegi 17 heures ba léegi moo koy coordonné mooy coordonné mooy wax gaa yi mooy wax gaa yi li am lépp li am lépp ci xelam bu rafet ci xelam bu rafet la kon sëriñ Masata Ndiaye jërëjëf ñi ngi sant itam ñoo ngi sant tamit ci turu Abdou ci turu sëñ Basiru ci turu sëriñ Basiru njabootu Baye Ale gi di ci sant Masata bu baax baax Massata Ndiaye di sant Abdoul Aziz di sant baax Abdoul Aziz Alé Ndiaye di sant baax Babacar Ndiaye Ndiak di sant bu baax baay Ndiaye mi nga xam ne mi nga xam ne mooy buntu mooy buntu ci Abdoul Aziz Alé Ndiaye te rafetal ko lool ñun nag nee na ñun nag yàlla defal nañu loo xam ne nee na yàlla defal nañu loo xam ne duñu waxal kenn duñu waxal kenn lu ñu xamul ci yow ci mbaax ak mbaax ak mbaax kenn ëppale wu leen ko ak yiw kenn ëppale wu leen ko ak bëgg lu baax kenn ëppale wu leen ko nee na foofu lañ mën a yem li may wax nag samay waxi bopp la de mooy yow Serigne Bassirou ñun ñoo am sens. mooy ñun ñoo am saasu. mooy ñun ñoo am saasu. li ñu seq ak yow. li ñu seq ak yow. ñu toog ci mbooloo ñu toog ci mbooloo. wax ko wax ko. ñii filmer ko ñii ko. yóbbaale ko ko. waaye li ñuy defal waaye li ñuy defal. yàlla daa yàlla daa dogal. kenn mënu ko publicité kenn mënu ko publicité. parce que nee na parce que. as gor as xam ne fu mu tëlee. foo xam ne fu mu tëlee. ñëpp naw ko ñëpp naw ko. fu mu tëllee ci fu mu tëllee rek ci mbooloo. ñëpp am yakar ñëpp am yaakaar ci moom. bu jaaxlee bu jaaxlee. ca ka mu jëm ca ka jëm. bu siiwul rek bu siiwul rek. nit ku baax nit ku baax la. te kenn ku ci nekk nag. nee na kenn ku ci ne nag. ci jamono bii ñu. ci jamono bii ñu ci ñun ñii ñuy wuyee wooyee ay liggéeykat. nee na ci ñun ñii ñu tuddee ay liggéeykat waaye wutkatu dara. képp ku ci sa bët xonq képp ku ci sa bët xonq wala nga jaaxle wala nga jaaxle boo fëggee sëriñ Basiru boo fëggee sëriñ Basiru sa xol dina sedd nee na sa xol dana sedd sa aajo dana faju te da nga dolleeku waat yaakaar te lépp nag te lépp nag ci ak mat rek la la koy defale ndax dana ko def ndax dana ko def ba ba ba la ngay am boo koy bëgg ba la ngay am boo koy bëgg la ngay bëgg boo koy am la ngay bëgg boo koy am du la fa fekk du ko fa fek du ko fa fekk moom it moo lay wan ne bëggu ci dara kon sëñ Basiru kon sëñ Mbakke na nga xam ne na nga xam ne daal ñun sax njaboot ñun sax njaboot lañu ñun wane wuñu ñun wane wuñu wane wuñu de wane wuñu de dañ laa mënta fay dañ laa mënta fay moo tax ñuy doxalee moo tax ñuy doxale nii ñuy doxalee nii ñuy doxaleeg yow waaye bu ñu sañoon waaye bu ñu sañoon lépp lu ñuy seq lépp lu ñuy seq ak yow Serigne Bassirou li ñuy defal li ñuy defal mënuñu laa fay mënuñu laa fay asaka bi waaye bu ñu sañoon waaye bu ñu sañoon lu ñuy def lu ñuy def ci biir néeg lañ ci biir néeg lañ koy def waaye yow waaye yow sag mbaax sag mbaax ak sag bëgg lu baax ak sag mën a yëkkati nit moo waral moo waral nga koy wax ca kaw man nag man nag dama fee ñëwoon dama fee ñëwoon jamono ji weesu ngeen di def première. nee na ñuy def appel journée culturelle Cheikh Mamadou Lamine Baara. ma déy la ko yow Seydou. man mu déy ma man Seydou mii. ne la daaw ne ma daaw. joxoon naa sëñ bi addiyee sëñ Touba. joxoon na sëriñ Bassirou addiyee sëriñ Touba. fukki nag fukki nag. ren dey ren dey. yàlla yokku na ma yàlla yokku na ko. ba ma yëg ba ma yëg ko. maa ngi ñaan sëriñ maa ngi ñaan sëriñ Bassirou. nga ñaanal ma nga ñaanal ko. ma sama bépp ñaanal ma sama bépp moroom. ba bu déwénee ba bu loo xam ne. lépp loo xam ne. yaa ngi koy def fii yaa ngi def fii. bu ci nit def dara bu ci nit dee dara. jàppal ne sunu xol sedd jàppal ne sunu ñun sëñ Mohamed Sylla sedd na ci. ndaxte dañoo jàpp ne ñoo war a def lépp kon Mbàkke jërëjëf ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg taxaw bis bi yàgg a taxaw lii. yàgg a taxaw lii. ci barke xaadim rasul ci barke xaadim rasul. Mbakke Mbakke. njabootu bayaale gi njabootu bayaale gi. dénkaat nañ la ko dénkaat nañ la ko. nga ñaanal leen nga ñaanal leen. jàppale leen jàppale leen. te taxaw leen ndax ku leen fonk la ndax ku leen fonk la. ñoom fonk nañ la ñoom fonk nañ la lool. jox nañ la cër lool jox nañ la cër lool. sopp nañ la lool sopp nañ la lool. bëgg nañ la lool bëgg nañ la lool. te loolu rek te loolu rek. la ab jullit la ab jullit mënal moromam. nee na lépp teraanga la te nit ki fi muy jóge di fa jage difa fa jage su ko jigee du fa jóge Pape Makhtar Lo mu baax mi nee na ku mën a xenc lu baax la nee na lii njabootu Baye Alla def nee na moom Pape Makhtar ci njaboot gi la bokk seeyal na njaboot gi ci biir moom boppam waaye moo ngi yëkkatiwaat beneen teraanga boo xam ne nag la sof ko comme teranga digganteem ak sëriñam bii xaritu xolam bii ku mu bëgg lool di Cheikh Mamadou Bachir circulation bi moo jafe waaye teranga jaa ngi ni yegg si na ndax daaw man la teg ñetti million sama loxo man Lamine Seck mii mu sëriñ Saliou ñoo àndoon yët la ko loola waral ma bëgg mu barkeelaat samay loxo ma tegaat ko samay loxo jox la ko. Ilaali yow la nu yaakaar si yow la nu yaakaar yow la nu yaakaar abadan. Sëñ Cheikh Saliou yow la nu yaakaar si yow la. waaw waaw mbër moo mas a mu sori kaw am na ko nit ci ginnaawam di ko wax aw meloom. yow ma ma ak buur ak ngi lay nuyu. di la ziyaara. di la ziyaara. di la jox sa wàccuwaay. di la jox sa wàccuwaay. jataay bii. mu ni jataay bii. sab jataay la. jataay la. lu fi nit wax. lu fi nit jëf. lu fi nit jëf. yow la ko jëfal. yow la jëf. lu fi nit mu wax ko. wala mu wax la ko waxal. yow sunu diggante. nee na yow seen diggante da ngay magam di kilifaam depuis 2004 depuis 2004 bis bii yaag moom yéen a ko ànd fu ma la woowee fu mu la woowee muy taw muy taw muy naaj muy tàng muy tàng da ngay bàyyi sa yitte da ñëw ànd ko ak moom te sama mag Serigne Saliou te magam Serigne Saliou yaa ko mag yaa ko mag kon sama kilifa bu sori ci man kon kilifaam nga bu sori ci moom mi ngi lay ñaanal yàlla mi ngi lay ñaanal yàlla yàlla sàmm la yàlla sàmm la jàppale la jàppale la ndax yow sëriñ baara la ndax yow sëriñ baara rek moo la ñor kon Mbacke Touba nee na nee na Serigne Touba nekk barsax ñi nekk barsax lenn lañ soxla lenn rek lañ soxla dellu siwaat ci àddina dellu siwaat ci àddina ngir jëf benn jëf bu baax ngir jëf benn jëf bu baax ndax foofa dara du fa doy ndax foofa dara du fa doy mu mel ni mu mel ni yëkkati kaasu ndox yëkkati kaasum ndox jox ko nit jox ko nit mu naan mu naan wala nga jël tibu ceeb wala nga jël tibu ceeb sarxel ko nit sarxel ko nit wala nga julli benn rakk wala nga julli benn rakk loolu rek lañ bëgg loolu rek lañ bëgg dellu siwaat dellusiwaat àdduna donte benn seconde la donte benn seconde la ñu jëf fi loolu ñu jëf fi loolu waaye alaaji aale waaye alaaji aale bayit woowu bayit woowu mën na cee bañ a dugg mën na cee bañ a dugg am na doom yu baax ndax am na doom yu baax te yonent bi moo ni isa maatal insaan isa maatal insaan in xata in xata amaluhu amaluhu illa illa min salaasin min salaasin sadaqatin jaariya sadaqatin jaariya علم ينتفع به على علم ينتفع ينتفع به ينتفع yëpp day dog jëfam yëpp day dog ba mu des ñetti jëf ba mu des ñetti jëf ba mu des ñetti jëf ba mu des ñetti jëf saraxe sarax bu mu daan saraxe. sarax bu mu daan saraxe. course sociale nañ ma ko maye nañ ma indi siège mu toog waay wax si fu ñu ma taat jenn ñëw jenn course sociale ñëw di Serigne Bassirou nee na Serigne Matar jenn mu dugg si di course di course sociale nan ko ko joxal place bu baax mu toog bi Serigne Bassirou Karim Awa Ba di wax. jar na takk discours ak social waaye Serigne Makhtar Diène social. Masata. yonent bi dafa wax ni. nee na yonent bi dafa wax ni. doomu aadama bu génnee àdduna. doomu jëfam yëpp day dox. jëfam yëpp day dox. ba mu des ñetti jëf. des ñetti jëf. sarax bu sarax bu mu daan saraxe. mu jóge fi mu jóge fi yool bi di ko fekk yool bi di ko fekk fa mu tëdd wala daara wala daara jum tabax jum tabax mu jóge fi mu jóge fi yoolub alxuraan bi yoolub alxuraan bi di ko fekk di ko fa fekk sadaxati njaariya sadaxati njaariya tabax juma tabax juma bënd teen bënd teen tabax jàkka tabax jàkka tabax ay ay ay ay may ko nit ñi ko amul. tabax ay wanag may ko nit ñi ko amul. loolu yëpp ci sadaxa la bokk. loolu yëpp ci sadaxa jaariya la bu loolu amul ñett ñaar yooyu bu amul. nee na ñaar yooyu bu amul. te yëpp alaaji aale am na ko. te yëpp alaaji aale am na ko. mu am doom ju baax. sarak. sarak. di ko nuyu. di ko nuyu. muy Abdou Aziz aale. di ko beral ak cant. ak cant. ngërëm ak ngërëm baay baay Mohamed dafa wax wax ju am solo nee na Mohamed na dafa wax wax ju am solo dani Baay Njaay dani Baay Njaay moom laa xamanteel lu yàgg moom la xamanteel lu yàgg ñi dugg ci famille bépp ñi dugg ci famille bi yépp ñi ci ëpp ci Baay Njaay mii la ñu jaare Sëriñ Basiiru nee na moom mii ci Njaay mii la jaare nee na mu nekk rakam nekk nit ku yàlla baaxal bëgg lu baax ku bëgg lu baax ku respecté doomu aadama ku respecté doomu aadama journée Serigne Bara bii journée Serigne Bara bii juróom-ñetti at yu mujj yi juróom yu mujj wala fukki at yu mujj yi wala fukki at yu mujj yi bii tardé wu te du ko te du ko woo yëgal ko ko day xam ni bis bi bisama kon Baye jërëjëf bi nee na waaye nag nee na yow Pape Matar sa diggante. sa diggante. ak famille Baye Allé. ak famille Alaaji Allé. foofu laa koy delloo foofu rek la koy delloowal. ndax Abdou Aziz. ndax Abdou Aziz. ak Masata mii. ak Masata mii. ak Baye. ak Baye. yaay seen lépp. yaay seen lépp. Babacar bi nee na mi ngi koy sant. wax ni ko. daf koy wax ni ko. Moustapha Mbacke mooy sa xarit. yow Moustapha Mbacke mooy sa xarit. ma ne ko man Baye mooy sama xarit. waaye man Baye mooy sama xarit. mu ne ma non damay lay nangu ci Moustapha. mu ne ko non dama lay nangu ci Moustapha. loolu lépp ak mbaax la. loolu lépp ak mbaax la. kon Masata. kon Masata. bëgg nañ ci lii. sëriñ bi nee na bëgg na ci lii. xolam seet na lool. tànk yi tànk yi. nee na du ne góoleel. ndax sarak ndax sarak yi. loolu lañ baaxoo. loolu lañu baaxoo. saa su nekk saa su nekk. di ko yëkkati. di ko yëkkati. mu jëm si ci moom Abdou Aziz nag sëriñ bi nee yàlla lañ koy bàyyal ku baax ku baax yàlla moo la gën a baax magi léebu yi ci Ndakaaru magi léebu yi ci Ndakaaru benn bis alaaji Abdou Aziz Dabaax da leen di ganes nee na benn bis alaaji Abdou Aziz si Dabaax da leen di ganes ñu woo ci benn magum léebu ñu woo ci benn magum léebu muy ab géwël muy ab géwël jottalikat di jottalikat ñu ne bu sëñ bi ñëwee ñu ne ko bu sëriñ bi ñëwee sunu kaddu sunu kaddu yow lañ ko jox yow lañ ko jox loo xam ci lu baax loo xam ci lu baax nag ñu ko waxal nag ñu ko waxal yëkkati enveloppe jox ko yëkkati enveloppe jox ko bi alaaji Abdou Aziz ñëwee bi alaaji Abdou Aziz ñëwee ñu jox ko micro bi ñu jox ko micro bi mu ne ko sëriñ mu ko sëriñ bi yaa baax yaa baax sëriñ bi sëriñ bi yaa baax sëriñ bi sëriñ bi yaa baax ba muy ñetti yoon ba muy yoon mu ne wasalaam mu wasalaam gaa yi jóg poñe ko. gaa yi jóg poñe ko. ni ko liñ la wax lépp. ni ko liñ wax lépp. ñaari kàddu nga fi wax. ñaari kàddu nga fi wax. mu ne leen yaa baax. mu leen yaa baax. bu fekkee man ngeen a wax lu ëpp lii. bu fekkee ni mën ngeen wax lu ko ëpp. ngeen wax ma ko ngeen ni nga ko jiit ni nga nekkee magam. ni nga nekkee magam. ba pare jiital ko. ba noppi jiital ko. loolu ak mbaax la. loolu ak mbaax la. dëgg la ku yàlla defarul sa xol. ku yàlla defarul sa xol. mënoo loolu mënoo loolu yàlla dimbaliwul ki yàlla dimbaliwul mënoo loolu mënoo loolu te loolu day wane nii te loolu day wane yàlla yow yàlla defar na sa xol na sa xol kon masata jërëjëf kon masata jërëjëf yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla sàmm leen yàlla sàmm leen Mouhamed mii Mouhamed Sylla mii baaxal ku ma ci xool Serigne Bassirou nee na ku ko xool ci Mouhamed Sylla di nga ko mere oh. Serigne Makhtar waaw course sociale nee na bàyyi nag ma rawee la point yi. Serigne Makhtar Diène course sociale nee na Serigne bi dugalaale ma ci biir wax jooju. waaw waaw waaw dëgg la la waaw. Serigne Makhtar Serigne bi nee na dina la ci dugal ndax yow da ngay xaritam. mën naa laa yóbbaale géew. nee na yow mën naa laa mën na laa yóbbaale géew. bi nga ñëwee. bi nga ñëwee. ni mu def. ni mu def. firi lu bari. firi lu bari. Mohamed. Mohamed. nit ku baax nga. jëf ji jëf ji. maa ko bëggee nii. Serigne Bassirou nee na moo ko bëggee nii. ni ko defee nii nga ko defee. dara safu ko nee na Mouhamed li mu jëf dara safu ko ci. ni ma ko def loo. nee na ni nga xamante ne noonu la ko Serigne bi def loo. dara neexu dara neexu ko ci. waaye maa ko bëggee noonu. waaye Serigne mii moo ko bëggee noonu. ku jox teraanga. nee na ku ñuy jox teraanga. nga koy xumtoo nga koy xumtoo. amoo yéene yi amoo yéene yi delloo ko kilo ko jox delloo ko kilo ko jox man nee na moom teraanga ku ma koy defal képp ku koy defal danaan ko déjj ci pénc bi danaan ko déjj ci pénc bi ñëpp gis ko ñëpp gis ko ndax bis day ñëw ndax bis day ñëw lu ma mën a taxawee lu mu mën a taxawee wala ma doxe wala mu doxe ko loola loola moo may moo koy laayil Mohamed Mohamed yoonu murit dafa am ci yaakaar. nee na yoonu murit dafa am ci yow yaakaar. yàlla bu suñu yaakaar tas ci yow. Serigne Bassirou nee na yàlla bu suñ yaakaar tas ci yow. gone. gone. bu jógee. bu jógee. xam fi mu jëm. xam fi mu jëm. teg fi tànkam. teg fa tànkam. dabe. dabe. yaru. yaru. mën a joxe cër. mën a joxe cër. respecté nit. respecté nit. ku bëgg lu baax. ku bëgg lu si la wax na ko. nee na Serigne si la Baye Fall wax na ko. nëga ni nëga dalaa waroon a fekk dalaa waroon a fekk nga yor daara di jàngale di jàngale alxuraan loolu ndax loolu nga dond ci say maam waaye taxawaay waaye taxawaay bi nga xam ni bi nga xam ni taxawaay bi nga am sëriñ Mohamed sëriñ Bass nee taxawaay bi nga am ci kër gi ci kër gi muy njabootu sëriñ Touba muy njabootu sëriñ Touba amoo ci xaj amoo ci xaj amoo ci seet. asgor nag. asgor nag. bu waxee. bu waxee. yeew na boppam yeew na boppam. bu jëfee bu jëfee. tekki na boppam tekki na boppam. te yow wax nga. te yow wax nga. jëf nga jëf nga. daaw daaw. ma ko waxoon da nga ko ko waxoon. defe ko ni ko waxee. defe ko na ko waxee woon. ren nga wax ko ren wax ko. defewaat ko nu raw ni ko waxee. defewaat ko nu raw na nga ko waxee woon. kon yàlla na la yàlla defal jàmm. man daal maa ngi sawet. Serigne Bassirou nee na. moom daal mi ngi sawet. muy naaj. muy naaj muy tàng muy tàng muy taw muy taw foo gestoo danga ko gis bis bii bis bii amul lu dul moom nee na amul lu dul bis bii ndax Serigne Baara ndax Serigne Baara buñ may tudd buñ koy tudd Serigne Baara tax Serigne Baara tax samay nijaay samay doomi nijaay nga fële nee na ay doomi nijaayam a nga fële am na ci ñoo xam maa leen mag. am na ci ñoo xam ni moom mii moo leen mag. am na ci ñoo xam ni ñoo ma am na ñoo xam ni ñoo ko féete ak mag. te buñ may nuyu. te buñ koy nuyu. dañuy summi seen dàll. dañuy summi seen ay dàll. raam raam. bu doon may sa waali joon bu doon may sa waali joon duñ ko def duñ ko def. waaye Serigne Touba. waaye Serigne Touba. moo tax ñu koy def. te sama buntu. te buntam. mooy Serigne Baara. mooy Serigne Baara. kon bis bi. kon bis bi. ku ci feeñ ci man. ku ci feeñ ci moom. jàpp naa la. jàpp na la. téye naa la. téye na la. te dootu la bàyyi mukk te yow yàgg nga cee feeñ te yow yàgg nga cee feeñ te mosoo cee yaafuus te mosoo cee yaafuus kon masata kon masata sarak ji sarak ji baay baay seen rakk ji seen rakk ji ngeen waxal ma ko Abdou Aziz ngeen waxal ko ko Abdou Aziz sant naa ko sant naa ko gërëm naa ko gërëm na ko yàlla na ko yàlla jàppale yàlla na ko yàlla jàppale ku santul nit ku santul nit boo santee yàlla doo sant yàlla yàlla du nangu loola boo santee yàlla yàlla du nangu loola kon sëriñ bi nee na Abdou ñoo koy ñaanal yàlla musal ko ci cat. yàlla musal ko ci cat. musal ko ci làmmiñ. musal ko ci fa mu bëgg àgg. fa mu bëgg àgg. mu àgg fa. man moom ndoxum sadoor rek. Serigne Bassirou nee na moom ndoxum sadoor rek lay naan. fu ma ko gisee. nee na fu mu ko gisee. du ma naan beneen ndox. du naan beneen ndax man maa ngi ci sadoor. ndax moom mi ngi ci sadoor. ba géej gi des walaat. ba géej gi des walaat. kon Masata jërëjëf. kon Masata jërëjëf. Serigne Cheikh Abdou mii ñëw. Serigne Cheikh Abdou mii ñëw. di suñu doom bàjjan. di doomi bàjjanam. doomi soxna ummi Touba. di doomi soxna Oumy Touba. Serigne Fallou moom sëriñ Fallou. ak Serigne Bassirou. ak sëriñ Bassirou. moom Serigne Modou Xaban. moom Serigne Modou Xaban. ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu. di ko sant. di ko sant. di ko ziyaara. di di ko gërëm. di ko gërëm. ci taxawaayam ci taxawaayam. sëñ Cheikh Mouhamed Fadel rakkam. nee na rakkam Cheikh Mouhamed Fadel. daaw daaw. teraanga ji mu def ci bis bi. teraanga ji mu def ci bis bi. rëy lool rëy na lool. man kuy bañ ma wax li nga ma defal. Serigne Bassirou nee na moom kuy bañ kuy bañ mu wax li nga ko defal. moo defal nee bu ko defal dara lu ma nit defal moom lu ko nit defal rawatina ci bis bii rawatina ci bisam bii danaa ko ba ñëpp dégg ko dina ko wax ba ñëpp dégg te bu mu wéetee te bu bu wéetee ñaanal la ci sëñ baara mi tax di ko def ñaanal la ci sëriñ baara mi tax nga ko def mu faj sa aajo mu faj sa aajo ndax Cheikh Moussa Ka nee na ko ndax Cheikh Moussa Ka moo ni ko faj aajo yaa ci faj moo ci gën a gaaw faj aajo moo ci gën a gaaw lu mu wax boroomam mu ni waaw lu mu wax boroomam mu ni waaw day fal di foll ci lu gaaw day fal di foll ci lu gaaw mat naa ragal ci xarnu mat naa ragal ci xarnu bi kooku mooy Cheikh Mamadou kooku mooy Cheikh Mouhamadou Lamine Bara. lu ma defal. nee na lu ko nit defal. ngir jëmmam ngir jëmmam. danaa ko wax dina ko wax. bu ma wéetee bu wéetee. ñaanal la yàlla ñaanal la yàlla. Cheikh Cheikh Fallou. Cheikh Fallou. barki démb nee na barki démb dafa woo jenn mële. ni ko daaw joxoon naa sëñ bi ay teraanga. ni daaw joxoon naa Serigne Bass ay teraanga. lu ma defoon. lu ma defoon. ko doublé. dinaa ko duble ngir jëmmi sëriñ Bara. bu mbokk bu mbokk yi teewee. faw mu wax ko nee ko. sant ko sant ko. gërëm ko gërëm ko. waaye di sant comité de pilotage bi. nee na sëriñ bi nee na mi ngi sant comité comité de pilotage bi. journée bu journée culturelle Serigne Bara. Seydou wax na ko léegi. nee na Serigne Seydou si wax na ko léegi. ñi ma àndaloon 2004. nee na ñi mu àndaloon 2004. ña nga nee toog ña nga nee toog. ku fi nekkul. ku fi nekkul. dafa wàññeeku. dafa wàññeeku. waaye ñuy dund ñëpp. waaye ñuy dund ñëpp. ñu ngi fi ñu ngi fi. te jëmmi Serigne Bara. te jëmmi Serigne Bara rek. rek. donc donc moo tax ñu ànd ak moom. kon maa ngi leen di sant bu baax moo ngi leen di sant bu baax. boo ci tuddee Abdou Aziz Kañ. nee na bu ci tuddee Abdou Aziz Kañ. tudd ci Pape Sylla. tudd ci Pape Sylla. Abdou Karim Thiam. Abdou Karim Thiam. Modou Diouf Wakaam. Modou Diouf Wakaam. Serigne Alaaji Fall jëwriñ ma nga ne. Serigne Alaaji Fall jëwriñ ma nga ne. di sant Serigne Modou Fall Nayda. di sant Serigne Modou Fall Nayda. di nijaay Abdourahmane mi. di nijaay Serigne Abdourahmane mi. di sunu nijaay. di nijaayam. di ñaan yàlla mu defal ko jàmm. di ñaan yàlla mu defal ko jàmm. bis bi kenn jiitu